divided road bañ na ko woykat ba woy na ko time pass Sir Dawda Jawara <laughs> the father of the nation li fi njëkk def ci dëkk dikk mooy jàmm uh-huh. lépp yomb uh-huh. mooy Senghor rek ñooñ dañ doon naxtaan tubaab bi mbir mi yomb uh-huh. bagage Angleterre Angleterre yi ñu lekk fële dañ ko indi fii nit di ko lekk xaalis bi gars yi jëfandikoo Angleterre moom lañu di jëfandikoo fi di Gambie emale ko waaye président Jammeh ñëwee dafa yokk éducation. yokk xel tabax ay lopitaan yu mag. yes dafa ay yoon yu bees. na ne Royal Victoria. yi ci lañ ko tëjaat defaraat ko. yokk ko defar fi yoo loo xamante ne ñun dañ daan def ne. ñun daal xam nga suñ jógee man bu ma jógee ku fi def lu rek la waaw waaw bi ma jóg man bi ma nekkee ndaw. ku fi def lu baax rek nañ ko woon comme comme Serekunda. soo defee lu bon wala ma jógee boori Birkaama di ñëw. ci Birkaama saate. su laaj offee sax bu tàkkee di nga xam ne fii am courant nag fii waaye boo ñëwee ba Laatakounda sondel yooyu noonu ñuy def ci biir pot yi ñoo lay wan ne fii mooy Laatakounda non damaa wax di fact li mu amoon la definitely da nga daan dem ci dëkk doo gis courant yi ñun taay moom ñu ngi neema ma suma kër sista alam sekk alam sekk yàlla na ko yàlla xaare àddina suñu jigéen ju baax alaaji bu may sekk ay bàyyam yal na ko yàlla xaar àjjana. bokk ndey docteur Kaaw Seck bi nekk MRC. ndeysaan. ak ki nga xamante mooy yaasatu Seck. Mhm. ci kunku jàng. kooku dafa tabaxoon këram 1994 tout ñoo doon dem di ko arroseel. comme mangoom yeeg yooyu noonu. waaw fekk nee ma yow amul laaj. dëgg la lamp caravane daal yi la ñu wutaloo mu wutal ñu dina la topp. Mhm. waaye yaa jàmm bi ñëwee ñëw na ba fa xam ne tànn lamp yi fu bëri. liggéey moo bëri liggéeyoon na fi. liggéey na fi lu am lu mucc ayib tamit. def na li yoon nañu àndam gu ñu tànn yooyu mhm. yoon amul fa. Mhm. da ngaa dem moto yi duute ñu wàcc ne xale yi wàcc leen. <laughs> wàcc puus bi mel ni tulleeg maale. Ah, ah, maa jox thirty thousand dollars definitely. when I was free education. a dee. yaa sama gars la moo may defal teraanga. ak a gaawoon billaay asal a baax nga da koo wax. mais ci poos maa gën a bi ndaxte. dëgg neexu sooy wax nit waxal li baax li mu la def. waxal li nga xam ne moom nga gis si moom waaw sooy wax lu bon tamit lu bon nga wax. ma ne ku mu def safaan bu baax def safaan ku mu def safaan bu taxawee di ko wax moom la concerne. nit ku ne li la concerne te moom ngay waxee. ma ne dëgg la nag. ku def lu baax wax ko ku li ñuy wax nii moo ko fi def moo ko fi def xam nga moom xam nañ ne am na yeneen jëf ah, yoo xamante ne tamit xam nga def na ko xam nga te baaxut loolu xam nañ ko waaye xam nga su eh, lu baax loo xamante ne dañ ko fi def xam nga dañ koo wax eh, ah, dañ ko wax sa def na lu bon waaw nit ñi di ko wax loolu laa nekk di lu baax nit ñi di ko wax donc loolu mënul ñàkk ala kulli al fii ñun ñëpp ay bani aadama lañ kenn matul na Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñun ñëpp dañuy juum dama bëgg a daan. waaw daan na parce wax ne président Diawara. Mhm. taay mam mhm. amoon na jàmm. nekk na koo xam ne ministère bi lu ñu defee la bon dafa lay wàccee rek. Mhm. waaw du la xam nañ loolu. ministère bu ci jël ay xaalis réew mi dana naan ah. di teel na demal Angleterre ci semaine bi balaa ngaa ñëw fekk ciiñ na la. waaye da lay bàyyi. nga amala mu jox beneen pause. mais président na ngay laal. yaa nga may tuub. nañ wax ci dëgg. te kenn du wax bloqué ko. waaw bloqué média bi. Uh-huh. dangay wax loo xam mbala nga wuti ENA uh-huh. muy nag nguur goo xamante ne ñu ñëpp xam nañu lu fa demee woon. waaw mu dool nag ci la jël lépp teg ko ci loxoom liggéey. Uh-huh. dëgg-dëgg fa yàlla ay lopitaan ay yoon ay lu ne. gëm nag béy développement gëm béy béy loolu. man dem naa Kanilaay ba ay yoon ci tool yi. xam naa foofu bu baax dem naa fa ay yooni yoon ci tool yi. dama dama fay dem tey ñëw tey ñu ma demaat su yeewu soo dem ñëwaat. mu am fi ah, ubbi fi fuur yu bëri yoo xamante ne yuut si. dañ fa dee liggéey xam nga pour at least muuru bi xam mu bañ a ñàkk noonu. xam nga loolu lu ko waral. Mhm. mooy soo bëggee séddee war koo développe. Mhm. te war koo jiite jiite moo métti. Mhm. yàlla dogal tey ji ñu dem ba Gambie gisuñu ne amul amul freedom. du ñuy wax dañoo gestu dañoo ñu la dee dañ ko sanction. mu Gambia has decided ñëw. waaw xam Gambia has decided ñëw kuñ xamul. kuñ foogutoon waaye yàlla mi xam te di di jàpp di def di ñu président Adama Barrow mu nekk koo xamante ne ku ne naan e man xamoon naa ko man nii na nii waaye yàlla bu dee tànn njiit da koy tànn ci biir góor yi ci nit ñu baax mu jëloon ni président Adama Barrow tegal ñu ko Adama Barrow bi mu yegsee nag président Barrow gis ne fii la président yee yeemoon muy yekkale ko ñaata róor la def uh-huh. te ba léegi mu ngi am ay projet yoo xam ne ay rôle lay war a def Adama ah, Barrow liggéeykat la man dama gëm ne liggéeykat man I'm not politics. we are not politicians. we are just here for the truth I know. we are all not politicians su ma daanee nga jël wax loolu yaa ak sa rastay rafet. Mhm. man. kon tey sa géej. xam nga suma maam lu mu wax. mu ne géwél buur lay àndal ab géwél kii la yàlla dox. lenge kooku la géwél di àndal.